yéen a koy gis noonu en image yéen a ngi koy gis noonu en image yéen koy gis noonu en image force de l'ordre yi gis nga armée jusqu'aux dents di dóor ay grenade lacrymogène gis ngeen ko noonu ngi gis noonu gars yi ngi gën a indi renfort fi nga xamante ni mooy université boo xoolee quatre ña ñetti ñetti ñetti ñetti blindé ñëw na anti émeute ak li nga xamante ne ni mooy seen car bii ni nga xamante ne nii presque ñu ngi ciy gis benn dizaine de euh, policiers gis nañ tamit ñeneen ñi nga xamante ñoom tamit ñu ngi ñëw nii en renfort yéen koy gis nii pour ñëw renforcer ñi nga xamante ñoo fi nekk mais jusqu'à présent étudiants yi bàyyi wuñ ñoom ñuy continuer aussi di sànni seen i xeer malgré que force de l'ordre yi dañoo gën a renforcer wu voilà yéen a ngi koy gis nii Wow yéen a ngi koy gis noonu gars yi di tëmbal ay lacrymogène yéen a ngi ya? ya, koy gis noonu gars yi ngi tëmbal ay gaz lacrymogène fi nga xamante ni mooy biir université mais jusqu'à présent nag gisu étudiants yi wàccuñu ci tali bi ñoom boo ñu ngi ci biir université bi di sànni ay xeer force de l'ordre yi di leen repousser mu nekk euh, affrontement yi nga xamante ne nii nemmeeku nañ ko ginnaaw bi nga xamante ne nii mooy le juge joxe li nga xamante ni nii mooy verdict bi doxoon ci diggante Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko ci procès en appel bi nga xamante ne nii Mame Mbaye ak ay avocat ak le procureur ñoo ko dugaloon. ginnaaw bi nga xamante ne nii juge bi joxe na verdict bi condamné ki nga xamante ni nii mooy Ousmane Sonko six mois ak six mois en sursis ak deux mille deux euh, cent millions d'amende ginnaaw loolu la univers euh, la étudiants yi génn commencé sànni ay xeer mu nekk euh, situation boo xamante ne ni pour le moment nag si euh, force de l'ordre yi ñu ngi koy maîtriser parce que boo xoolee pour le moment étudiants yi ñu ngi ci biir université ñu génn pour barrer tali bi wala loolu noonu. force de l'ordre yi tam ñu ngi nemmeeku une forte présence ñu ngi gën a yokk seen i seen i seeni ndaw ñu ngi gën a yokk li nga xamante ni mooy capacité bi ñu ngi gën a yokk li nga xamante ni mooy présence bi fii université. boo leen gisee avant ñuy ñëw fii nii wala moment bi ñuy doog a ñëw bëri woon noonu trop mais pour le moment commencé nañu di di di di di di yokk li nga xamante ni mooy renfort bi fi nga xamante ni mooy université yokk aussi li nga xamante ni mooy seen voiture blindé yi anti émeute yi gis ngeen leen gis ngeen leen yéen leen di gis nii ak li nga xamante ni mooy seen anti émeute yi ngeen seen seen seen seen voiture de blindé yi boo xoolee aussi ci beneen côté bi bi nga xamante ni mooy rond point bi aussi foofu aussi force de l'ordre yi aussi dañ ko bloqué taxaw buntu université pour le moment benn mu mënul dugg benn mu mënul génn à part ñi nga xamante ni nii ñoom dañuy doxi seeni soxla mais xeexuñu ñoom la ñu permettre ñu dugg tranquillement wala ñu génn tranquillement yéen a gis noonu force de l'ordre yi en face buntu université en face buntu poudre pour le moment nag côté boobu amul ay yëngu-yëngu force de l'ordre yi jël nañ ko amul gul ay yëngu-yëngu boo xoolee côté bii nii foofu la tension bi am ba léegi fi nga xamante ni mooy côté pavillon P bi yéen a ngi koy gis nii en image yéen a koy gis nii en image xaaral ma li nga xamante ni sama lumière waaw boo xoolee côté bii moo am yëngu-yëngu max fii nii étudiants yi nanguwuñu bàyyi malgré que force de l'ordre yi repoussé nañ leen ba ñu nekk ci biir université bi mais boobu ba léegi bàyyiwuñu ñu ngi continuer di wëyal di sànni ay xeer ñi nga xamante ni ñooy force de l'ordre yi yéen a ngi koy gis noonu en en en image. internautes de Dakar Actu, vous êtes bien en direct euh, sur Dakar Actu TV HD. Euh, yéen a ngi fi nga xamante ni mooy université de Dakar si tali bi nga xamante ni mooy tali Cheikh Anta Diop de Dakar avenue Cheikh Anta Diop de Dakar ñu nemmeeku fii ay affrontement yi nga xamante ne nii moo dox ci diggante ñi nga xamante ni ñooy étudiants yi ak takkadeer yi li ko waral nag mooy ginnaaw bi nga xamante ni juge bi. Euh, euh, joxe na verdict bi nga xamante ni moo doxoon ci procès en appel de Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko condamné ki nga xamante ni Ousmane Sonko six mois sursis ak amende deux cent millions ñi naan Ousmane Sonko dina bokk ñi naan Ousmane Sonko mënatul bokk ci élection yi mais ginnaaw loolu nemmeeku nañ fi ay affrontement yi nga xamante ne nii moo am fi nga xamante ne nii mooy université yenn étudiants yi di wane li nga xamante ni mooy seen mécontentement par rapport ak situation bi mu nekk lu doy waar loo xamante ni nii pour le moment bloqué na circulation bi oto yi nga xamante ni ñu ngi ñëw pour le moment dañuy dañuy dañuy dañuy wër dañuy wër jël fi nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy tali bi pour le moment boo xoolee circulation bi oto demul oto dikkul boo leen ko xoolee circulation bi oto demul oto dikkul oto yi nga xamante ni ñooy ñëw dañuy dañuy dañuy dañuy jàdd jël canalu Fass bi mu indi fa embouteillage bu doy waar parce que pour le moment foofu boo ko jaaree oto du dem oto du ñëw fii nag fi nga xamante ni mooy buntu université pour le moment force de l'ordre yi ñoo ko bunkeriser gis ngeen leen ak seen dispositif bi nga xamante ni teg nañ ko noonu indi ay ay ay L200 gis nañ fi aussi ay ay ay ay ay ay ay kii ay blindé ay voiture de blindé gis nañ fi aussi seen car yi gis ngeen leen avec une forte dispositif bi nga xamante ni mettre nañ ko en place pour contrecarrer li nga xamante ni ñoom les étudiants mais malgré tout cela étudiants yi boobu léegi ñoom ñu ngi woyal di sànni ay xeer di wane seen mécontentement di taal li nga xamante ni mooy biir université mooy saxaar bii nga xam ne mooy yéen a koy gis noonu pour le moment nag biir université mi ngi tax xamuñu ndax ay taal wala lan la mais pour le moment li ñu mën a xam daal mooy biir université si boppam mi ngi tàkk yéen gis noonu saxaar bi nga xamante ni à l'intérieur de l'université ci enceinte bi fa lay fa lay fa lay fa lay fa lay jugee force de l'ordre nag pour le moment ñu ngi maîtriser situation bi parce que étudiants yi génnuñu ci tali bi ñoom ñu ngi nekk ci biir université pour le moment mun nañu jàpp ni force de l'ordre yi maîtriser gun nañ situation bi parce que étudiants yi génnuñu malgré gis nañ ci benn force de l'ordre boo xam ne dañ ko jot dafa jot a blessé ñu évacuer ko gis nañ noté nañ ko fi sànq aussi gis nañ ci benn euh, force de l'ordre boo xam ne daf jëlee ay gaañu gaañu ba gars yi euh, évacuer ko yéen a ngi ni force de l'ordre yi yaa ngi leen di gis nii ñu ñenn ñi yor ay xeer ñenn ñi yor ay xeer ñenn ñi yor ay ay ay ay ay ay lacrymogène gis ngeen leen noonu ñooñ kooku noonu di sànni xeer bi biir université Thank you. yéen a ngi gis noonu saxaar bi yéen a ngi gis noonu saxaar bi étudiants yi di wane seen mécontentement yenn étudiants yi di wane seen mécontentement taal fi nga xamante ni mooy biir université mu nekk ay image yu doy waar yoo xamante ne nii affrontement da doon am mais daanoo ko woon gis en général affrontement bu doon am étudiants yi dañuy génn yàq à l'extérieur mais bii pas nag à l'intérieur de l'université moom mën nañ wax ni moo tax que image yi ñu gis nii bien à l'intérieur de l'université Fofu moo am ay tàkk-tàkk tàkk-tàkk yi nag ah, lan la xamaguñu ndax ay cantine ñu taal wala ay taabal ñu taal wala ay pneu yu ñu taal la lu ñu mën a nemmeeku ci biir université am na ay tàkk-tàkk voilà yéen a gis li nga dispositif bi gis ngeen dispositif bi nga force de l'ordre yi mettre nañ ko en place pour bloquer ñi nga xamante ni ñooy euh, étudiants yi nekk ci biir université bi pour ñu génn gis ngeen yéen a ngi koy gis noonu en image yéen a gis noonu fële aussi yéen gis noonu fële gis ngeen par pratiquement tali bii nii yëpp boo xoolee ay force de l'ordre la ñoom ñoo bloqué li nga xamante ni mooy mooy mooy mooy tali bi. gis nañ aussi ay taxi yi nga xamante ni commencé nañ jàll par benn benn ay taxi ñu ngi leen di gis par nank-nank. gars yi ñu ngi libéré li nga xamante ni nii mooy circulation bi pour oto yi mën a circuler mais nag par nanka nanka ñu ngi nemmee ko aussi ay njaga njaay boo xoolee aussi yaa ngi gis ñi ay njaga njaay yu gis ngeen fee nag dafa mel ni ni dafa mel ni force de l'ordre yi ñu ngi commencé bëgg dugg li nga xamante ni mooy ci biir université bi léegi gis na la fee ne nga xamante mooy buntu Pout yéen a ngi gis noonu euh, force de l'ordre di di di di commencé dugg yéen noonu en image yéen a gis noonu en image kuddu kuddu nga xamante ne ni mooy force de l'ordre yi ñu li nga xamante ni mooy. yéen koy gis noonu en en image oto euh, yi commencé nañu circuler yéen koy gis noonu en image. pratiquement li nga xamante ni mooy rond point Cheikh Anta Diop bi force de l'ordre yi ñoo ko récupéré boo xoolee pratiquement li nga xamante ni rond point yi force de l'ordre yi nañ ko pour le moment nañu étudiants yi malgré que ñu ngi di sànni ay xeer. di wane seen mécontentement mais ñu ngi ci biir université bi boo xoolee pour le moment euh, force de l'ordre yi maîtriser nañu situation bi. voilà merci vous êtes bien en directeur fi nga xamante ni mooy Dakaractu dóoraat nañu ñi nga xamante ni ñooy force l'ordre yi dóoraat nañu dóoraat nañu ay grenade lacrymogène li nga xamante ni mooy biir université dinañ koy dégg noonu grenade lacrymogène yi tàq fi nga xamante ni mooy à l'intérieur de l'université mën nañ ne nag pratiquement circulation bi euh, oto yi commencé nañ circuler mën nañ ne pratiquement tali bi oto yi commencé nañ circuler ñu ngi ñu ngi gis oto yi di circuler parce que yéen a koy gis ni en image oto yi commencé nañu circuler fi nga xamante ne nii mooy avenue Cheikh ante Diop yéen ngi koy gis noonu en image circulation bi. xamante ne nii mooy voilà xaaral ma avancé ak yéen wala leen li nga xamante ne nii moo am ci kanam fenee Vous en direct euh, sur Dakaractu TV ñu ngi fi nga xamante ni mooy université de Dakar université Cheikh Anta Diop ci rond point bi ginnaaw mécontentement bi nga xamante ni étudiants yi wane nañ ko. gis ngeen yéen a koy gis noonu en en image force de l'ordre yi bunkeriser li nga xamante ni mooy buntu université. boo xoolee pratiquement fi nga xamante ni mooy buntu université gisoo leen gars yi ngi wëyal di dóor li nga xamante ni mooy ay grenade lacrymogène pour repousser ñi nga xamante ni ñooy étudiants yi nga xamante ni ñooy sànnante ak xeer ñoom gis nga a koy gis noonu en en image gis nga yéen a koy gis noonu en image yéen a koy gis noonu toujours en image force de l'ordre yi jàkkaarloog ñi nga xamante ni ñooy étudiants yi. vous êtes toujours en direct sur Dakar Actu yéen a ngi koy gis noonu gis ngeen leen force de l'ordre yi di continuer di door ay grenade lacrymogène gis ngeen voilà yéen a ngi koy gis nonu. yéen ngi koy gis noonu yéen a koy dégg noonu gaa yi ngi continuer di door li nga xamante ne nii mooy seen i grenade lacrymogène pour repousser ñi nga xamante ne ñooy étudiants yi